waaw téye leen seen ngay wàññeeku comme ma reculé waaw naa reculé. ma ci HLM. Jaraaf Ndaw gannaaw ba nga waxee yàgg la Laysa dugg ngeen ci politique lu dootuma ci dellu Jaraaf dama lay encouragé ndax jàmbaar nga teg bëgg Macky la Jaraaf merci beaucoup Lalla Aïcha nag sama rakku bopp la maa ko dénkoon sama yaay Ayda Njong te rëccuwuma ko ndaxte la ma ca yaakaaroon yëpp gis naa ko Razam nag ñaari façon militant la am le militant actif bi ñëw topp sama yaay Aïda Ndiongue ak ñi mu seqal àdduna seqal jamono te mënuñoo jóg te seen xol ne ci moom ku mel ni man moo tax ñun ay membre Razam lañu fekke naa ba ñu koy sos kon su ma ñëwaatee fekk fi mbooloo mu toll nii duma bett ndaxte HLM 2015 am na 27 ans ci tey fii ci HLM la ñu doon waxtaanee bureau national bi war a diriger parti socialiste te fii la ñu waxtaanee ba fan Papa Bakar Mbaye doo ko dellu kër Amadou Ndiaye Racine fii te xam ni responsable sunu yaay ay da muy Birakan Ndiaye. Birakan mu tàggat ko lool. c' est vrai ay da jàngal ko pour la bi. kër yi yéen chaque daan nasee. di noc daan ci. bi lay dëgg Momadou Mbaye sakkal la woon. loolu am yaa taala may fi lañ defee lépp. HLM. yàgg naa ami jàmbaar. Hmm. ndaxte nga xam ne moom lay wax. bokk na ci ñetti jigéenu Ndakaar yi nga xam ne marqué nañ ma seen biir politique. Hmm. ndax aji aram jéen. foo jaar ñu tudd ko ndax mooy premier député wu jigéen dem assemblée làkk wolof. Leena Fall Diagne. ñoom ñaar lañ. bu paasee. Adja Leena Fall Diagne ak Aïda Diong la. wallaay wallaay. ndaxte. loolu datewul tey de. loolu histoire la. c'est te te te. Leena Fall Diagne. Hmm. Aïda Diong. jamonoy Seck war xaw ma ci lu bari. Hmm. mais jamonoy Abdou Diouf. ca hmm. les amis de Jean Collé ba nga génne. la jigéen taxawoon. woon na jigéen mën naa mën góor. billaay billaay. li tax ma tudd Aïda Diong ak Leena Fall Diagne. jigéen ñi taxawee Dakar dugg ci quatre coordination ci onze. Mm. fekk mu nekk adjoint au maire. ñu jigéenu HLM ni Aïda Niong yaay présidente coordination HLM. H&M. Mm. Léna Fall Diagne yaay présidente coordination Fass Colobane Gueule Tapée. waaw waaw. mbirum jigéen ñi féete boor. ñu ñëw ci góor ñi. góor ñi HLM boo doon ay na ñoom yaa ngi ko jigéen waaye yaay góor tamit. loolu yàgg na de. président nekk na secrétaire général gisee góor yi. bilaay bilaay bilaay bilaay. loolu moom nee na Fall Diagne ko fi def. dëgg la ñoo nekk président bi jiite jigéen ñi. jiite góor ñi commune nekkaat secrétaire général ñu dem 86 ñu kañ waat nekkaat meeru dëkk ba. kon loolu histoire da koy retenir. Hmm. histoire. Hmm. di retenir nii. ci ñi yàlla dénk réew mi jamono ju nekk lay tabax réew mi ay na ñoom indi ciment ak béton jamono yi Abdou Diouf taxawaayam nekk sénatrice ay na ñoom ànd ak Abdou Diouf liggéey Sénégal Ablaye Wade ñoom mu ànd ak moom liggéey Sénégal waaye damay foofu sama ñax président Macky Sall ñoom loolu ne xore bi ñu jël ko ñëw tànn lu président Macky Sall soxla ci mbooloo wala taxawaay boo na ñoom dañ koy gën a dénk Macky Sall la président. dëgg la waay. dañ koy gën a dénk président Macky Sall ndaxte façon Aïda Ndiongue bu la nee dama lay jàppale ci politique bu la yóbboo gëm ko ndax Aïda Ndiongue soxlaatul salaire. déedéet. Aïda Ndiongue soxlawul indemnité. Aïda Ndiongue soxlawul carburant. Aïda Ndiongue soxlawul logement de fonction. man de naw naa ko lool ndaxte am na ku ko wax muy sama jigéen laal la. Hmm, laal la Aïcha. li nga def ci HLM bari na de. dëgg la de billaay dëgg la. li nga def ci HLM. bari na parce que ay la ñoŋu nag damay bañ ngeen yaakaar ne ay la ñoŋu HLM la. ay la ñoŋu romb na ay la ñoŋu Dakar jëm Sénégal. national ndaxte foo ko yóbbu ci Sénégal. ñun la wàllu wàllu ba ñëw na. sañoon am yaay ñu mel ni moom. dëgg la waay. daf ci am jigéen ñoo xam ne dañuy taaral jotaay daf ci am façon jigéen yoo xam ne boo leen déggee ci jotaay dañuy may jotaay ba qualité. dañuy may jotaay ba jëmm. may ko valeur. dañuy may valeur jotaay bi. te hmm. ci jotaay bi ñu may ko doole. nga ko téye. dëgg la dëgg la de. yéen waa HLM téye leen ci. président Macky Sall na ci mooy téye ci. jigéen ju baax ju am valeur la. te tamit. que fu mu féetee may foofu doole. HLM nag man dama leen a fan. damaa tey ci As journal As ñu ne fi jaaroon romb mais daa mel ni waa HLM dañoo làkk ni génn réew. HLM dañoo responsable yéen ko liggéey yéen laay gërëm félicité daal bii yow dañoo tàmm ni. waaw. ma déggoon ni fi ñëwee Jaraaf. waaw. bi Macky mayoon un million bi. dégg naa yéen na. waaw. Macky Sall kan mu laal bu baax. ñëw keroog ñun ñu équipe bi bu gagné day yéeg. ban deuxième division wala premier. deuxième. waaw. dégg naa yéen a gagné démb. 3-1 kon Macky Sall jig na leen. jig na leen bi ñu toogee ni terrain de football bi. dañoo soxla ñu jox ko waa HLM mu jox leen titre foncier ci saa si lañ ko yónnee message mu tontu. mais bu dee HLM terrain bi la soxla. expliqué tey d' accord naa ñu jox ko ko jox ko titre foncier bi HLM am terrain bu ko. mbooloo mi ay jigéen ñu service laa fi gis. ay jeunes yu engagé laa fi gis. Mm. mbooloo mi du bétail bi ñuy fay 3 mille 5 mille. déedéet ñu toogal ci 6. Mm. bétail boobu heure bii jotee laaj nañ seen xaalis te dem kon maman naxuloo ñu mbooloo mi kat. commune boo mën ci dëkk ñi bu ñu ci dugalee seen loxo yàlla mën nañoo may def. wallaay kon jërëjëf jërë ngeen jëf vive le président Macky Sall vive la coalition Benno Bokk Yaakaar je vous remercie.